man mor ndjay la tuddu wa man fi la am ñetti magasin yépp lakkan waaw man dal ay euh, booru 3 heures lama sama ben frère wo dama pak bi amna fuy tak mané ko fan la mu ne côté machine yi fam ay machine yu ne fa lay xaray bant mais yow sax du machine courant machine batterie la mais sir bi la ne mo ngay tak ci la daw wacc wétal auto mënuma tal auto ama may droit ci buntu pak bi ñu ne ma rotation bi dag na dama dugg rek seen cokkoor bi fu fil bu tegu rek takk na mënuma ak sax sama place ca laa daw wiiri fiit fekk fi sama beneen fere bi ma ne ko woo ngeen sapeur mu ne woo nañ sapeur mais sapeur yi ñëwuñu ci la ñu daw dem ba ci sapeur yi fële yi nekk euh, côté nii am nay sapeur yu ne foofu dem fëgg leen mais ñoom ñu daw ñëw ne mënuñoo dugg si pàkk bi di wër tàkk-tàkk bi nag gën a gën a gën a gën yëg lépp tàkk parce que fii bois la bois la dafay dafay tàkk kon plaqué dafay tàkk bu doon fer garaawul mais lépp bois la man sama ñetti magasin bu nekk bois la parce que foofu noonu ci machine yi siir la siir mooy li machine bi génne bois bi dafay dafay dafay nooy siir boobu daal la fa la tàkkee alaa kulli xamuñu nag lu ko taal foofu la tàkkee waaw foofu daal la tàkkee parce que bi ñu may boobu tàkk bi egsi gu sax suñuy foofu la tàkkee mais bi tàkk-tàkk li jëmee kaw la station bi dagg fii li dagg daanu waaw fii li nag yëpp moo leen taal moo ko yokk waa moo ko yokk moom loolu mooy li am. ak sapeur yi bi ñu ñëwee yéex nañoo def yéex nañoo def réaction parce que wër nañu yàgg fii di wëndeelu rek man am ci ko xam ne dama ne ko tojal fii tojal fii miir bi fii nga taal fii fii nga dóor fii fii kii bi kéegul fii tàkkagul mais faalewu ma sax ñi laa toog di xool sama samay place muy tàkk nii ñi may wax ak yow nii sama ñetti magasin yëpp jeex benn bu ne mooy mooy def naa ci 20 millions 20 hmm? waaw ñetti magasin bu ne mooy ma dana ba léegi ñooy fi. lan ah fii ah, man ñoo xam parce moom mbir yàlla parce que am na ñoo xam ne moom ñi ñeneen ay jaaykat la wala ñi naan ay mu daal mënoo xam daal lu koy taal daal parce moom fii moom macha allah moom li fi lakk ma ay millions la kenn xam lu mu tol ay bàyyi may jënd ay xar yeeg yëpp a dem ah parce que fii jël na fi am pa ay gardien waaye moom mooy loolu te ñoonu yee ba ba muy lakk boobu quatre heures la quatre heures du boobu l ñu ñëw ak suñu paane suñu yëpp mooy loolu daal ñu ay courant ñu naan ay jacket la moom daal mënoo xam lu fa demee daal yàlla xam loolu mënoo xam lu fa demee suñu xare yëpp a dem na yëpp a lakk ba yëpp benn ba benn bëy wax moo ci gumba moo moo fi jénn mais xool loolu yàlla suñu borom xoolal mu def rek benn bëy kenn xamul lu mu toll fii ah, démb lu fi dugg si ay millions kenn xamul lu mu tool Pa Moussa lu fi dugal 4 millions la fi dugal kenn xamul lu mu toll parce que boo xool xam na atelier bi instant yàqu na mu tourné waat jénn dem yoonam néew sax di xaar euh, dara. maanaam mécaniciens yi ci ginnaaw fii mbalit yi nekk foofu am nañu nekk ñu ne wax ne dañuy taal foofu quoi waaw ñii tamit nee nañ machines yi mais mais man jàpp ma ne machine yi la quoi parce que ci ginnaaw daana faral di tàkk fi mi côté mécaniciens yi daana faral di tàkk gars di ko fay waaw parce que fii ñi fiy liggéey ñëpp du kenn ku fiy fanaan ñi fiy liggéey ñëpp dañuy wàcc ñibbi dañuy wàcc ñibbi ñun ak yéen rek ñoo ci bokk yem fi toll nii li ko taal ñun ak yéen ñoo ci yem ko xam waaw ko xam waaw loolu moom laa noonu mën a wax moom nii nañ courant bi courant ñun fekk nañ ko mu dagg teg yi loolu lañ si xam à part ça daal koo laaj ni bi koo laaj ñu machine bi koo laaj ni ñu nekk si fee la ñoo ko ri waaye xamuñu si dara yàlla daal moo xam waaw ñu yàqu nag bari na trop moom waaw nan muñ nag non uñ toll moom lu yàq ay milliards a milliards mën nu la ko xam ndaxte maa ngi sama placé nga étage bi daal daanu ba di rës xaw ma ni mu demee waaw pàkk lambaay la mos fee am nguur gi moom mun na si xalaat dara moo ñoo xool lu war def ko lu warul ñu xam moom daal loolu lañ si xam waaw man daal mënu ma la wax lii la mën a wax. ne ko soxna daan lakk mais lakk bi moom ça la prévoit depuis de vingt ans vingt cinq ans. waaw daan na lakk moom waaye ñoom ba lakkee ba léegi mosuñoo taxaw sax wax ñoom mosuñoo taxaw wax. waaw ñoom mosuñoo taxaw wax kon ba lakk bi metti na xaw ma nag ba xam dinañ ma sa wax dinañ ma sa wax xaw ma si dara ñun daal ñu la ñuy déglu daal après daal. te laa ñuy xool ñoon nan jéem a fay suñu lii ba pare moo lañ gën a tal waaw nan fay suñu lii ñu xam ne ñuy def ëllëg loolu daal laa si xalaat. tey al ajjuma bi juróomi waxtu tegalee juróom-ñeent fukki nit ak ñeent lañ ñu woo ni ñu pàkk làmbaay mi ngi lakk bi ñuy wooyee heureusement léegi Pikine am na ay sapeur pompier yoo xam ne ñi ngi ci maire bi. moo tax cinq quarante cinq déjà première mois yi egsi nañu yéegi nag renfort yi door di jógee Géejawaay Malick Sy Sicap Parcelles Assainies ci loolu ñi ngi engagé téeméer ak ñaar fukk ak ñetti sapeur pompier yoo xamante ne mën nañ cee compter ñaar fukki officier rien que pour jéem fay lakk gi alhamdulilah fay nañ ko léegi. ampleur dégâts yi ndax euh, maanaam li yàqu moom mën nañ la wax bari na lool lu ko bari lool mooy ndax jafe-jafe yi ñu amoon déjà jafe-jafe yi dul ni ngeen xamee pàkku làmbaay yoon yi ci biir doon na yoon yoo xam ne yu xat a xat la ñaareel bi aussi nit ñi yombal lañu sunu liggéey parce que bu ñu ñëwee ñu bàyyi sapeur pompier rek ñu liggéey. mais pour sapeur pompier xam nañu formé nañ leen ci nan la ñuy fay lakk mais tant que police ñëwul wala gendarmerie ñëwul du ñu bàyyi ñu liggéey suñu liggéey correctement te loolu day yeexal liggéey bi day da ngay gis koo xam ne day yaakaar mi ñuy dimbali sax mais day gën a yeexal suñu liggéey loolu moo tax ba nga xamante ni li nga xamante ni mën naa ko wax am na ñaar fukki oto yoo xam ne oto camion mbalit lañu déjà lakk nañ ci ba jeex. ak li nga xamante ni mënaguma ko compter maanaam matériel bois ak yeneen matériel yi nga ne parce que bu ñu nee pàkku làmbaay dañ naan matériel bois rek la wala ay carrelage mais lu nekk ci biir ku nekk ni ñu jiree te du lu ñu sectorisé ñii fu nekk la ñuy jaayee kon mënumaa taxaw fi mu nekk nii wax la mais li ma mën a xam daal mooy am na ñaar fukki camion yoo xamante ni alors pour mbalit la yoy ñom lak nañ mais cause yi xamulen ci dara cause yi mom aussi mënuma leena wax ni len li motax mu lak koku ay spécialiste ñom ñoo mëna xol après enquête dal ni keut li mo taxon mu doon lak gañu gañu wala amna bakkan bu ci rot bakkan bu ci rot ba légui malay wax ni kenn waxaguñ ni bakkan ron na ci gañu gañu aussi alhamdoulillah civil yi gisaguñ ko ci te ñun sapeur pompier aussi gisaguñ ko ci nam légui nak sapeur yi ñi ngi nekk ci phase bi nga xamante ni maanaam bu lakk gi jeexee gis ngeen ñuy xëcc seng yi nga xamante ni ñoo lakk gis ngeen ñuy xëcc daggitu bant yeeg yooyu yëpp c'est pour léegi xàll yoon yi xool ci biir ndax danañ ci for dara ci biiram déet kon mënu guma leen a wax nii leen fii mu nekk nii am na ku ci faatu ak ku ci faatuwul mais li ñu mën a wax mooy li ma mën a xamagu fi mu nekk lu ma leen mën a wax mooy ah kenn signalé guñu cas bu mel noonu. ñaata moo lakk. ah mën naa wax mu ne ni ay junni la mën naa wax ñetti junni mètre carré lakk na mais gis nañ ne euh, lakk-lakk bi fay ngeen ko mais des na yu ndaw euh, fii ba kañ ngeen xalaat ne définitivement lépp dina fay définitivement. loolu loolu du dara ci sapeur pompier parce que fi mu nekk nii boo xoolee asamaan si bu fekkee ne da ngaa nekk ci autoroute bi dootoo gis ay saxaar ay saxaar yu ndaw a ndaw nga gis kon phase bii ñu toll nii ci sapeur pompier li naan le feu est on est maître duma sa feu éteint mom lañ wax ay xal ñofi nek nekk gisaguñu sawara wuy jog ci kaw ay xal xal yoy nak xal yoy instant xam koy mu dem naturellement bu aussi tay que duñu dagg bagages yep dañ équipe de surveillance mën na ñaari engin ba ñetti engin d'incendie ak ay ñu établir bu ni ñu gisee xal yi ni kenn xalaatul dem bàyyi noonu sawara si mais fi ne nii pour ñun foo bi jeex na. fàttali man la commandant Oumar Kane mi nga xamante ni fu brigade bi amee yu mel nii man maay jàkkaarloog presse bi wax ak ñoom.